Cheikh Abdoulaat kum jamanool jëfal na la boo ko yëgee boo ko yëgul jariñ na la di fasal yéene bis bu am solo muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer yu ñu nekk di mois de juin fas koo def ci ndigalul xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ànd ci ak Serigne Sidi Mbacké di xalifab Serigne Abdoulaat ñun waa kër Cheikh Abdoulaat yëpp yi nga xam ne jonoo nekk fii ci Côte d'Ivoire may wax ci kàddu yu jëwriñ yi ñooy woote bis bi tombeeg la 27 ci weeru tubaab ñoo ngi ci woo mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi ci Côte d'Ivoire mbooleem ku fiy ndaw noo ngi lay woo ci turu sëñ Mourtala ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne bii nun ndaw ñi nekk Côte d'Ivoire gépp defal na nu loo xam ne bii mënuñu koo fay te bis bii moo ko tàmbali woon ànd kook nun kon nun ñëpp war nañ cee góorgóorlu wane ci pëstéef wane ci pas-pas yàlla ci àgg ak jàmm te weesu ko lu bari barkeb Serigne Touba waaye nag dafa am jigéen joo nga xam ni ba ñëpp jógee moom it kenn yoo bàyyiwu ko fi ndax Serigne Bamba rek ko ñor ci lay dox muy Adja Bintu Wade marraine bis bi. ñu màggal gi la kon na kon maa ngi ciy woo kon jigéen ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn rawatina ak sama mbokk yi ma bokkal Daaru ndax man amul lu dul Salaam. képp koo xam ne yaa ngi bokk ci fédération Cheikh Mamadou Lamine Bara fii ci Côte d'Ivoire ñu lay soññ ci bis boobu xam ne bis boobu yi sunu bis la bisub guy mbind la waaye bisub Cheikh Mamadou amin baara la di len wo ci sunu bis bi le 27 inshallah allah Touba Treichville ñongi wo woo nak bayyi wuñu kenn di wax ni rek bis bi sunu bisa ndax it seigne sëñ Abdoulahat jàmbaari l'islam jooju ñun dañ ko wara fonk ñun mouride donc lolo tax tay ji ñu dajé fi ñew fas wo jigen jigéen jigen ni commencé jigen ni jigen ni Sénégal yépp ñi nga xamni ñi ngi nek Abidjan dal wo nañ len ci bis bi invité d'honneur yi ñu wo ci Adja ñaana ma Sorang ak Lawbe ñaan fiñ ko wo fa la wara wuyu wo ci tamit Adja Toba Diagne mi nga xamni moy la présidente de la fédération des daïra Tidiane ci invité d'honneur yi la bok wo ci tamit maître Mariam Touré di avocate à la cour qui ci invité d'honneur yi la bok waye nak parrain bi di le professeur Aliou di président du conseil d'administration bu université Atlantique di ancien consul de la Côte d'Ivoire waye nak amna ay invité d'honneur yi ko top Serigne Cheikh Thioro Bassirou ci invité d'honneur am nañ ci tamit Mansour Ndiaye ci Côte d'Ivoire di invité d'honneur moom tamit di opérateur économique ak Habib tamit bokk na ci invité d'honneur yi. ci noonu ñu yëkkati sunu kàddu ci ndigalal sëñ di Mbacké moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké nga xam ne moo fi jëmee sëñ Abdou Lahad mu jaaree ndigalam ci doomam ji di. sëñ Cheikh Abdou Mbacke moom Cheikh Murtada Mbacke rakam ngir mu ñëw fii taxawu si bis boobu yi nga xam ne bisub kenn la ci yoonu murit di jàmbaar joo xam ne ah, ñëpp ko amal njukkal kon muy bisub Cheikh Abdou Lahad Mbacke kon ñu ngi ci woo jullit yëpp ñu ngi beral ab woote kenn koo xam ne léppam sëñ Abdou Lahad la muy Abdullah excellence Abdullah Souran ambassadeur bu Sénégal fii ci Côte d'Ivoire kon moom mën ni bis bi bisam la rawatina uh, jëwriñu daayira yëpp yi nga xam ne ñoo nekk Côte d'Ivoire bàyyiwuñu kenn góor ak ndaw